waaw kay en fait dama la woo pour expliquer la ndax xam nga li ma defaraloon bu njëkk ba ne woon nga ma naa muñ rek naa góorgóorlu ma muñ euh, dinañ ma fa jël bu soobee yàlla ma liggéey wax dëgg fa yàlla signal nañ ma contrat pour six mois xam nga foofu kii état bi la état bi en général du ñu gaaw a sax signal nit waaw man biñ ma proposé ne dañ may signal sax damaa kontaan ma xalaat nag liñ ma doon wax lépp. waaw wax dëgg fa yàlla li nga ma doon defaral li yëpp gis naa ko waaw mais euh, dama lay ñaan rek ba tey xam nga contrat bi dañ ne six mois la léegi damay ñaan contrat bi mu ñu renouveler waat ko mais lenn rek a ma jeexal mooy ñi ma la waxoon ñaar ñaar xale yu jigéen yi nekk foofu ñoo ma sonal daal ci liggéey bi yenn saa yi damay dem ba bu ma bugg a craquer ma naan sax damay bàyyi. sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baalaat xaq te di leen ko baalu yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun su seen bu màgg bi di Kun Fayakoun TV nga xam ne ne njariñ ak xam-xam ngeen fi jëlee tey nag ñu ngi ñëw waxtaane waat waxtaan bu am solo si wàllu nit ki ndax jamono ji nit ki saa bu la waxee mbiram wax la aajoom war nga koo dimbale ndax ñun toujours li ñuy wax sunu ndopp ma gi ni defar képp ko nu ko defaral nga takku ko sa bërëbu entreprise wallahi nga takku ko fa daan dafa jël te kenn du la fa mën a dàq entreprise bi boo fa nekkee nekk sa ginnaaw nga bëgg patron bi yëkkati la jox la beneen poste fexeel ba ko saafara bi saafara boobu yaa ngi koy sangoo neuf jours nga sagoo ko génnee sarax bi foo mën a jaar entreprise boobu ñu jox la fa place boo xam ne ne eh, bi nga nekkoon bu ko ëpp doole entreprise bi nga nekkoon nga takk ndomba gi nekk ci biir place bi foo nekk kenn mënu la faa dàq pour jële la fa te saa bu ne dañuy jéem a yëkkati sa garaat te képp ku lay xeex si entreprise bi du la mënal dara moo tax ñu bari si mu loolu la ñuy jëflanteeg ñoom surtout si wàllu papier gis nga bépp papier bu mën a doon si wàllu kayit nit ki di ko lijjanti ji wàllu papier bu mën a doon nit ki di ko lijjanti buñ la xasee ba defaral sangat bi ne la sangoo ko suur nangam ak nangam léegi nag boo ko sakkoo nga génneel ma sarax bi ñun ñu wér li ni de këyit boobu bu doon fukki at. fu mu noonu fukki at kayit boobu làqu wala fukki at kayit boobu réer danaan la woo génneel la keyit bi moo tax ñu bari ci wa bitim réew loolu la ñuy jëflante ak ñun moo tax nag ñun moom suñu mbir dañoo bëgg nit ki di ko defal muy gis te ñun suñu mbir def gis la dañuy ñaan yàlla yàlla moom mooy maye te gëm nañ ne bun ko ñaanee mu may ndax moo tax toujours ñuy wax ñun ki ñuy jëflanteel na ñuy may temps xam nga doomu aadama dafa am ñoo xam ne dañoo xaw a yàkkamti te mbiru yàlla du yàkkamti mbiru yàlla patient ma patient mooy lan nga nit ki jox nga ko nga mm, sax xaalis na ko liggéeyal ma may ko temps mu xalaat xool ndax ma samay mbir loolu la il ma jël sa turu ak sa turu yaay càmbar ko xool ko xam saraxe xam biddiw bi ban heure lay dox ak biddiw bi ban heure lay lay circuler ak ak li koy yëpp bu ma ko xamee rek waxuma la semaine ak deux semaines pour nga ñaanal la dafay yomb pour ñaanal la nga am papier dafay yomb pour ñaanal la am liggéey dafay yomb moo tax suñ jaara yi képp ku ko takk une semaine say mbir commencé ubbee ko bërëb boo nekk yëkkati ko fa lépp looy doxi am ko moo tax jaara yi moom eh, yi def gis la jaaray bayral kaaraange wërsëg yoo xam ne dafa ànd ak sàngan nga xam ne da ngay laal tey gis tey kon nag ñu ngi leen bu baax Euh, si lënd bi pour ñëpp mën a jëriñu ci xam-xam yi kon incha allahu rabbi ngeen xaar nu kon ci live beeg tiktok bi incha allah youtube bi moom seen youtube la jërë ngeen jëf te ngeen abonné bu baax.